ñu bëri nee nañu kii na la def ba ba exister par force. Uh-huh. ñi ñu ngi wax am na nag ay ay jëw yu la gars yi jëw da ngay teg fond de teint ah da ngay teg ay lentilles. ah c'était pour pour pour jommal pour jommal nit ñi ah pour ñu ragal la. lan moo waral loolu lan waral nga indi ni nga ni nga mel nii ko ñu bari aussi nee nañ dafay diw. waaw dafay diw pour gën a xees. ak fond de teint bi am na message ma jot léegi ñu ngi laaj ci question yi. Mm-hmm. comme tey moom tey moom dañu comme en exclusivité tey di ngeen xam kan mooy Thierno Amadou Kounkandé mm. pour lépp leer xoloon la jinne yi la ñun ñëpp lu ñu jaaxaloon la ñun ñëpp wax dëgg yàlla léegi expliqué ñu ni nga ni nga ñëwee nii nii nii ak li nga jot a dégg bi ngay doog a ñëw voilà mm-hmm. dinaa ko expliqué jaamu yàlla yi pour ñu xam mm-hmm. yow daakaar naa liggéey Yves yow sama papa xam nga ko bu baax fecc la woon jool ci kaw nekk la noom da baax bu baax xam naa ko ca Colobane <laughs> yaa ngi dégg bu baax baax mm-hmm. moom lañ doon wax Chérif ah. Mm-hmm. ayca waaw. Chérif moom defe naa yaakaar na xam nga ko. Mm-hmm. xam nañ ko bu taxawal rek ñaan waa Chérif bi nag. Mm-hmm. taxawee ñëpp ne Chérif bi. ba ñëpp la jaaxaloon ko la ba. moo tax ñu tuddee ko Chérif. waaye Mouhamadou Chérif la tudd. dégg naa ñu bëri ñu naan man damay foolatee wala damay xeesal. waaye yow xam nga ne ñun suñu famille ñëpp dañoo xees. loolu moom. parce que xam nga si moom loolu loolu moom loolu moom loolu xam naa. am na sama sœur bu nekk Dalanda bu nekk France. Dalanda pour rappel bu fekkee ñi xamul ñu xamul sërëm bi muy wax kili bu Pape Cheikh Lonkotina. Ah, jël bi ci fecc noonu. Ah, ah. moo kii ñoo bokk ndey ak baay. ñoo bokk ndey mooy pour la photo boobu noonu. pour la photo boobu ngay rek la ñëw def na fi un mois. Mhm. vacances. ñu mhm. ci kër yaayam. Mhm. mooy Fatima. mooy yaay pël la. ñu koy wax Fatima de Zahra Diallo ñu ngi koy nokkal baax a baax ñu ngi Westfalen. Mhm. daanaka foofu la dal. ok maa ko jëlee jaay la quoi. maanaam sama garde corps rapproché ba ñuy wax Michel Amar Diouf. Mhm. nga xam ne Baye moo nekkoon. Mhm. chef colonel douanier yëpp ñu ne woon fii Sénégal. képp ku nekk douanier rek moom moo la formé. ok mooy élément bee mandal. nekk na garde corps au milieu présidentiel. di ànd ak Macky Sall bu ne. bu ne taxaw. yaa ngi dégg yaakaar naa ne man laqatuuma. du dëkk diggee jiw. sama adresse doomu aadama yëpp xam nañ ko maa ngi dëkkee jàmmalaay. si biir doore bu jàmmalaay yoo xam nga ko. ñëw nga ko ñëw nga ma siyaara sama soxna su baax soosu. ñu koy wax Seyda Adjaratou Binta Niang. nekk France. nekk waa Tivaouane. yaa ngi dégg nekk waa kër Cheikh Aboubacar moom macha allah. ñu koy ñaanal yàlla bu baax a baax yàlla may. xam nga kii pour mu ñëw ñun dañoo sonn ci émission bi. sonn nañ ci <laughs> ko <laughs> woo nañ ko. waroon na fi ñëw ci confinement bi. Mm-hmm. am am dog-dog ci yoon bi. Mm-hmm. presque trois mois. ba pare ba pare gars yi suñu suñu xamee ne da ngay ñëw nii. si hmm? yenn sëriñ yi dañuy def ay dóor affaire doo ñëw de. loolu waaw dañuy woote naan du ñëw. waaw man man. Euh, dañuy woote naan du ñëw. bu ngeen ñu joxee ndigal mën nañu cee mën ci leeral. ayca ñëwal ñëwal ñu invité si jamonoy confinement bi. ci confinement bi waaw na benn am bu ñuy wax maanaam yaakaar naa ne mi ngi nekk maanaam gendarmerie Foire. waay defe naa yéen xam ngeen ko sax. waay manque respect mu leen manque respect. waay dara moom ko may ñu dara ko. su ma dara may ñu ko dara dara may ñu ko. su ma mbokk la waa Kolda la. ok mais chrétien la. Mhm. yaa ngi dégg. Mhm. keroog bi ma ñëwee. Mhm. mu téye ma. ne maanaam daf may jaay ne maanaam moom moo ma njëkk chef bi gendarme nangam nangam. waaye tey. man wala naa ko man maa ko respect. je suis un vrai citoyen ma jox ko respect. Mm-hmm. keroog sa yéen gis ngeen muy ñëw di téye ministre bi. waay waay vraiment loolu moom on était tous témoins. waaw yéen ñëpp ay témoins nangul kenn dem. waa ji nekk président sa ku wax mun la. président waaye après mm-hmm. kilifa yi mu am na si ay ay gàllankoor moom si boppam. voilà kii mooy kii mooy sœur sœur Koukandé. voilà kii mooy sœur mooy. moo tamit Kasane Samba Yër Diallo la jàngee ñëpp xam ko bàyyi ko xel. Mm-hmm. yaa ngi dégg. Mhm. ñoo bokk nday ak baay moom mi ngi gis nii. waaw mi ngi France. Mhm. yaa ngi dégg. Mhm. maanaam fa lay liggéeyee. am fa borom kër. waaw. yaa ngi dégg sama woy bu jigéen mi ngi fii West léegi bëti nag bëti. voilà léegi. ñu leeral ko comme plateau télévision la. mu leer nañ waaye. bëti am nañu bëri ñu naan yow Yves Sawaji Kunkande. ay lante lay loolu nag moo ci kom parce que man xaw ma ku teg laan te ku tegul laan. waaw ah, Zeyna rek moom ah. <laughs> man dama teg laan tey parce que ay correcteur lañ. Euh. de temps dama koy teg pour mu corriger samay bët. am na ñu ah. bëri yoo xamante ñu bàyyi mbay mu eggali foofu. ñu naan Kunkandé ay lant la teg. Mhm. Mhm. man li may def ragaluma ko. Mhm. ñu bari nag ñu ngi si dinga naan dafay teg ay lant di nappaati. waaye man. maa jël maanaam li nga xam ne tay mooy ay def ko sama bët bi. amul moo si ragal. Mhm. que. am naa ci droit da ngay ah, am naa ci plein droit. lan moo waral loolu. waaw li waral loolu mooy lan. Mhm. parce que man maa opté woo ne maanaam dama koy def. ok. ni puis li nit mooy la am na ay lentille correcteur. pour corriger sa bët. Mhm. am na ay comme ni soxla am na ay yoo da nga koy def maanaam tey. maana pour protéger maanaam say bët. say que boo xoolee sama commentaire émission yi ma def yëpp. Mhm. dañ naan Koungheul ay bët bi danañ yàqu balaa muy dee. te lii damay fanaan ak moom damay sangu ak moom. doo ko dindi. déedéet te tey boo xoolee ku mel ni Seyda bi buy mhm. sangu maanaam da koy dindi. wala buy tëdd na la koy dindi deux heures de temps laa ko def ma dindi ko. man damay fanaan ak moom am naa si ay seede. ok mën naa ko def une semaine. Mhm. te du la du la indil benn problème. mu indil la. parce que yi ne na nga doon napp da nga ñëwoon pour napp sëriñ yi fi nekk. non man ñëw moom pour napp sëriñ yi man damaa ñëw oote sëriñ si dalen comme dañoo oote woo si biir maygaan bi. Mhm. mën nañ lii mën nañ laa. te tey. Mhm. di jëyee dinaa la xamal loo xam ne tey mosoo ko xam. acca xamal ñu ko. tey kay duy sedd. lépp la parce que dama la ne woon émission bi dara du yomb. tey du yomb de. oui pour mu leer parce que sénégalais am na seen benn journaliste bu ñuy wax Soye bu GCP. Soye bu benn waaw. bu nekk war fajiri sunu confrère la moom dafay dox maanaam pour dimbali jaamu yàlla. Mhm. pourtant sëriñ si hmm. mu def promotion pour mu defal nga am problème ak Soye bu ak Ndoye Bane. non non amul problème am salu ci si man parce que dañoo xañaan. parce que Ndoye Bane mos na fa génne benn tës. am ku woote di wax ne dañ la da nga nekkoon prison yooyu loolu aussi bëgg nañ mu leer. waaw loolu danañ ko leeral tey. waay. Mhm. parce que xam nga man su la cuqee rek. dama bëgg nga ñëw pour ñu leeral jàmm yàlla. dama bëgg mu leer parce que am na sax ku posé question bi naan ndax dëgg-dëgg dafa def prison wala lu ñu sosoon la rek. am na benn caacaay boo xam ne dafa oote woon. Mhm. mu complicité maanaam am ñoom doy ba. Oh. ba dem ba yéene ma sax ne ma danañ jàpp danañ ko soxla. Mhm. fii ba péncëb yàlla doo ko dégg mu wax. kan sama martabam al martabatu laatu moo mu yoote woon daan naan def ma yàq ngi si woote woon mu ngi ci ay tolof tolof. waaw. Mhm. dama ko toroxal dama ko wax ne man doomu citoyen doomu Sénégal la parce que lu muy def man institution publique la dama ko topp si yoon. a dafa toog télévision mu ne Kounkandé. Mhm. sàcc la woon nangam nangam. parce que mhm. maanaam dañ ko neexal xaalis. riposté wu ma daw ma yoon ma toog si biir yoon ba keroog may dem maanaam Fès dem jaaree Cheikh Ahmed Tidiane. sax am na ñu bëri ñu maa jàpp maa ngi Mm. ndéygay bu ñëwee mu dëggal ko. mooy bi mooy bi ñu la gëjee gis. bu ma jógee waaw bu ma demee fee dem ziar ñu maanaam Mawlana Ahmad Tijani radiyallahu mm-hmm. mooy suma sëriñ. Mm-hmm. Mm-hmm. bi ma fa jógee ki ma njëkk damay interview mooy Malick Dakar instant. waay moom moo génnee stof yi may dugg fee si zaawiya bi. damaa ñëw fekk ñu tëj zaawiya bi. zaawiya Cheikh Mouhamadul Idris ak maanaam zaawiya Cheikh Ahmad Tijani ñu tëj ko ma ñëw ñu tijji zaawiya maa ngi daal kër Thierno Mansour Baro fa lañ ma dal. yi nga xam ne fa la wëlu yàlla yëpp daloon ci béy canaan su borom war a moo ñaanoon tey maanaam tey fii si waliyu yàlla yi nga xam awliya ñoom ñoo nekk Sénégal ne yàlla na am kër jàkkaarloo jaare Cheikh Ahmad Tidiane Cheikh moom moo moo Mansour Borom rek moo am kër